عبيق المسك زاكية من السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزني ما قيل الجبال كما يلي قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار والوحش والطير والأسماك معنا عامل يا ليهم الجن والأملاك والبشر والزر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والسيف والحب الياس والوبرات عد بقباله صام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلا أن تبعد منورا في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض was اليوم وي وابنيهم السبتين آلام الهدى ينن بمحمد وببنته آه وببانها وابنيهم ستين من هدى أنا جلدي وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى فرج سقام العبد واكسف كربوم سانغو جامونو يونن يا خير من مد العساة له اليدا ليس فرج هموم المسلمين وكربوم yaa xayra man maddan usaatu lahul yadaa joon ndeysaan ana soppe Serigne Babacar Sy loxo xëy ni mbay na nga ñëw tey xalifa bi liggéey na bàyyee looloo dal al amin ñëwal ba gis añ bi yàlla waaw Serigne Bakar xawaadisul kenn du ko fàtte ah ci Sénégal a ko seede ci moo tax gàmmu Tiwaawan a ngi ñëw boo demee ci raw du Sëriñ Babacar sa yaram day daw bopp baa nga tàmbalee ci kuli ñépp di boo xante ngir ziyaar borom bone kaare xam nga lu ko ko may mësula mooy boromam mësula fecci kullëre mësula dog ak bokkam wax lu amul du jikko moomam waaw waaw fii hijjatu ana ñu bëgg sëñ ba hijjatu waaw may doomi may doomi gaaya yéenu ku jël sama loxo fii hijjatu waaw waaw tey ma way waaw way doomi gaaya yéen a ko jur bay mbay doon de Sëriñ Babacar Si na la fii jatuwaawoon Tiwaawan Sëriñ Babacar wax leen Amad Mazaya wax leen Balda dégguma dara Amad Mazaya waa marché Ahmad Maza yow Serigne Babacar mu ni Ahmad Maza ya dif leen ni azal lazi man mana xala axlaax tom doxu min al baraya ajibal madhi afwaa ko Omar lu mu wax yàlla def na ko fi dunya wa axira Cheikh Omar lu mu wax yàlla def na ko fi dunya wa axira Cheikh Omar lu mu wax yàlla def na ko fi dunya wa axira ñetti doola am lu ñu wax yàlla def na ko fi daawa iqra lu ñu wax yàlla def na ko fi daawa iqra lu ñu wax yàlla def na ko fi daawa iqra lu ñu wax yàlla def na ko fi daawa iqra lu ñu wax yàlla def na ko fi daawa iqra yàlla def na ko fii bu yaawa jël Fuuta lu mu wax yàlla def na ko fii bu yaawa jël Faama lu mu wax yàlla def na ko fii bu yaawa jël Faama lu mu wax yàlla def na ko fii bu yaawa jël Faama lu mu wax yàlla def na ko fii ngeen xam nga nan ngeen di def jëli leen tariixa wax leen waaw moo tax jamono bi jamono ndaw ñi la mag ñi bare tunu te mag ñi ndaw ñi lanu yaakaar ci diine jeeg tariixa bi bu ñu waxee rek ñu naan damay bàyyi ba jub xanaa xamoo leen ni tariixa bi ki jubagul la soxla ndax boo ko jëlee sooy def lu bon bu yàggee dalay raxas salaatul faatiha day raxas nit dem leen ñaani salaatul faatihi saabu kay dindi tilim moo ko tax a jóg boo jëlee tariixa cheikh soo bëggee alal mu yomb la boo jëlee tariixa cheikh sooy jaay lu baax dangay jaral boo jëlee tariixa cheikh boo ñaawee sax bu yàggee dangay rafet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 waaw Serigne Babacar xërëm siw na dégguma dara mawla yaasal ca kaw ala habibika xayril xalqi borom santeneer moo fi amal gamu ge mawla sant leer bi li wa sallim daima abada billahi bika khayril khalqi kulli la qadan wa وسليا يا إلهي وجزيا أبدا وتاج في الجار ويل الهوى وسبابك سبابك

يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا جربان أنا تجاني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا جاب قلبي وعيوس يا رسول الله سكتت مويل يا رسول الله يا جاب قلبي وعيوس يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا جاب قلبي وعيوس ya rasulallah su gàmmu jotee gàmmu gi moo dala ko yàlla séddee nangu leen ko te noppalu ya rasulallah oh, oh, oh. ya jërë gàmmu gi moo dala ko yàlla séddee nangu leen ko te noppalu ya rasulallah ya jërë gàmmu gi moo dala ko yàlla séddee Maodo la ko yàlla jagleel yaa rasulallah yaa jëra magal Maodo saa gàmmu bi Maodo la ko yàlla jagleel nagul leen ko noppal man la

عين يكون إلى سبق اتباق بجسمي بمي خطي أسمان يدف ملاك يكون تاتشو تاتشو لني ننتبه وقد أشرفت أملاك وتجلتي kooku mooy Seydina Muhammad Rasulullah ku tusaak dana ñëw doon ñëw ku tusaak dana ñëw doon ñëw ku tusaak dana ñëw doon ñëw ku tusaak dana ñëw doon ñëw yëkk ci sàggan ñu dem bi ma yee ba yàgg yëkk ci sàggan ñu dem ma xool Mouhamed yëkk ci sàggan ñu dem Mouhamed si yëkk ci sàggan ñu dem yëkk ci sàggan ñu dem ku fi gën a bëgg seen baaba yëkk ci sàggan ñu dem yëkk ci sàggan ñu dem yëkk ci sàggan ñu dem yëkk ci sàggan ñu dem yëkk ci sàggan ñu dem al-amina al-amin al-abdu al-amina kan moo daan joxe al-amina kan moo gi yëngoo kuy wax mu dal alamina Serigne Abdou mooy wax mu wax mu dal alamina itijaay bu nu yëngoo koy yee alamina sa turandoo mooy wax mu dal mooy turandoo alamina chauffeur yi bu nu grève koy yee alamina sëriñ Abdu mooy wax mu dal mooy mu dal alamina bi mu amee fukki at ak juróom benn lu ko sëñ Babacar woo ni ko yaa ma doy alamina ku mu neex wooteel gàmm loolu jarul xuloo ku mu neex wooteel leneen loolu jarul xuloo ñun Maodo nu doy li Maodo ama nu doy ñoogati waawan ku yor leneen nag demal wali eh képp ku bëgg alaaji Malick sa loxo rek laa soxla naari diini alaa rifaata nitu yàlla yi bari nañ waaye wuute na inaarato amat umur Muhammad lii Pape Malick di wax Serigne Alioune Gueye moo ko way te Cheikh Alhaaji Malick la ko way te Pape Serigne Alioune Gueye nee laataa may dajeek Alhaaji Malick wër naa dëkk yëpp wër naa Sénégal gépp daara ju nekk dem naa fa waaye Serigne Alioune Gueye na Serigne bu ma sukk ci sa kanam boo waxee ba yeggal rek ma yëg ni mënoo maa jàngal waaye nee na keroog bi ma dajeek Alhaaji Malick ba mu fëgg sama bopp bi Serigne Alioune Gueye nee na bépp xeetu fànnu xam-xam keroog Alhaaji malik sol na ma ko te Pape naay wax gars yi nag ni leen léegi la coow li bari kenn ku nekk mën a lal waaye booba jamono matière boo soxla woon dañ lay wax demal dëkk sàngam boo demee nga jàng ko fa demal gox sàngam soo demee nga jàng ko fa bayaan daa am ku koy jàngale mantiq daa am ku koy jàngale siira daa am ku koy jàngale fiq daa am ku koy jàngale aroot daa am ku koy jàngale grammaire daa ku koy jàngale alquran daa am ku koy jàngale mennum alaaji Malick rek kepp kett dong moo lal daara boole xeeti fànni xam-xam yëpp di ko jàngale ci benn daara kooku Cheikh Alhaaji Malick rekk ko def moo tax réew mii paap ku fi am xam xam-xam bu leer te wér alaaji maalik a la jàngal bu la jàngalul ka ko jàngal mawdoy ki ko jàngal ku fi yor tariqa jaarama ma xileen jaarama bi ko yàlla jëlee ci kiraayu leer ya da koo dugal ci géeji leer ñu ne alaaji maalik bindal mu ne wa qaatiun abxuran yaa an biha sabaqa aljamia min nazratin wal xubbi weer ak ñaata at la fa leeru sidina Muhammad gi def mu ne xam naa ko géej gu njëkk ga fukki junni la ba ca topp juróom-ñeenti junni ba ca topp juróom-ñetti junni ba ca topp juróom-ñaari junni ba ca topp juróom-benn junni ba ca topp juróom-ñeent ñett ñaar benn géej ya jeex ñu ne Alaaji Malik ana leer ga mu ne maa ngi ko topp ñu di ko joxante maam par maam Alaaji Malik ne maam ju mu jaar xam naa ko jugal ma jox la néegu maam yu góor ya ñu ne ko kana kan la mu ne Muhammad Abdallah ko jur Cheybata ko jur Hashima ko jur Abdi Manaf Qusay Kilab Murrata Kaab Luway Xaalib Fihrim مالك نظر كنانة خزيمة مدركة إلياس مضر نزار معد عدنان Maodo ne tekk ñu ne ko da ngaa gàkk mu ne déedéet yonent bi moo ne ku lim samay maam boo yegsee ci àddinaan taxawal Bilal